auzu billah min shaitan rajim sunu am di jàmb nga xamni yene ñoo setan fi ci SNF Pass TV bientôt bientôt inshallah bientôt de très très belles choses ci sen chaîne bi di SNF Pass TV na ñepp abonné ci ñi ko mën bu gene ko bëggee rek abonné leen dañu fi amal waxtaan yu baax yu baax yu baax yu am solo ci yu bare bare bare ya bare dañ ko ah. euh Sénégal fi mu tollu diaspora bi àdduna bi daanu waxtane géostratégie ak stratégie développement économique. économie na ñëpp waaj inshallah rabi rabbi ci SNF Pass TV hmm? dans un beau décor un bon emplacement de belles idées avec de bonnes gens de bonnes personnes d'excellents Sénégalais l'expertise locale les ressources humaines du Sénégal hein? dañu ko amal fi ci SNF Pass TV Abonnez-vous, bosse leen cloche information bu ngeen am woo leen nu yónnee nu ko le numéro de téléphone Pa Assane Seck 70 parce que ñun expresso la ñu àndal 70 630.